Eh, wérdi gi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa waxoon ne firra minal majzumi firaaral asadi nee na wopp ji ñuy wax ngaana na nga ko daw ba mel ne kuy daw gaynde kon loolu rasulullahi moo ko santaane la ci waxoon ci poroxaan ji laay fàttaliwaat nee woon na eh, Abu Ubayda bi nga xamee ne Seydina Omar mi ngi doon seeti armom bi nekk Cham far yàlla ba muy bëgg dem ñu yëg ne mbas xew na ci dëkk ba dafa diisoo saxaaba yi laaj leen ba xam lu war a def bi mu diisoo ñoom am ku génn benn xadis boo xam ne Sayyidatuna Aïsa moo ko andi mu wax ne rasulullahi sallallahu alayhi wa na lu mel nii boo xewee ci dëkk ku mu fekk ci dëkk bu fa jógee bu fa kenn bàyyi koy dem feneen kum fa fekk itam la fa dal na nga fa toog loolu boo koy seet ba nëgë ni xam-xam weesoogul loolu boo xooloon tey ci àdduna fi mu toll ñu yëngu ci wàllu médecin nattuwaay yi ñuy wax loolu dara jiitoo ko ci tey àdduna sépp yaa ngi dégg ba ci màkka yëg ngeen ne ombre ga fan yi tëj nañ ko kon nag boo demee ci réew tubaab yi itam dégg ngeen di ci xew